fa yóbbu Adama Gueye opposant la man mii dox naa ñu jàpp ma dugal ma kasaw loolu du yomb ñu ñëw ci wàllum inondation yi monsieur le premier ministre sept cent cinquante milliards pour un plan décennal moom ngeen wax jëlee ko deux mille douze deux mille vingt deux nee ngeen di ngeen di ngeen defaat un deuxième plan décennal de à deux mille trente cent cinquante milliards yoo xam ne boo demee tey Géejawaay banlieue Dakar li am ren ci ndox mi fii ci Ndakaaru monsieur le premier ministre je n'ai rien contre les lions abdoulaye sow 6 milliards ils wax né mom 6 milliards de budget au lycée sey sayidina qui a 320 enseignants 130 agents 1200 euh, élèves il risque ruine ruiner. yaakaar naa ni kon priorité sur priorité njàng mi dara gënu koo nekk priorité ñu ñëw nag ci lu jëm ci wàllum groupe des médias cinq cent quatre-vingts pères de famille yu fa ne te boo sàgganee ñoom ñëpp chômage lañu jëm te nee ngeen président Macky Sall moom mooy roi wu social social boo xam ne moom muy créer ay chômeur moom la Macky Sall di créer te loolu war nañ ci wax lu jëm ci wàllum insécurité monsieur le premier ministre fu leen neex mooy am sécurité fu leen neex du am sécurité ñu ñëw ci wàllum stade yi ngay wax wax nga stade Caroline Faye euh, wax nga Bambey wax Parcelles Assainies waa doo tudd Guédiawaye su Macky sàll bañee ñu am beneen association des maire day tëddee njaaxaanaay te def koo deful ay mairam daal nice képp kuy maire opposant mu taxaw ci yow Macky Sall nag na am esprit de dépassement comme rakam ji toogoon fii léegi gis naa mu dem Aliou mi ma wutu ci mairie ba mu jéem a góorgóorlu Tout le nit ñi il est le président de tous les sénégalais te mom lay wax chaque jour mais Macky Sall képp ko ànd ak moom ko ànd di ngeen nopi dé di ngeen vous comprenez ñu bëgg nak monsieur le premier ministre ñu wax ci wàllum euh, euh, euh, le bi ngeen doon wax ne le gouvernement social gouvernement li, gouvernement nous ñun le lañ bëgg ngeen waccio ak mom te wax tamit lu jëm ci walu dundinu askan wi nee ngeen wàññi ngeen dund gi dund goo xam ni ban côté moo wàññeeku ban côté moo wàññeeku loolu la ñuy laajte beneen bi nag moom mooy bu leen farte article vingt sept bi gis naa ne sa discours bi da ko koo tëb xam naa bëggoo cee dugg parce que pour des raisons que tout le ko ne mais Macky Sall na xam ne deux mille vingt quatre na takk ay de La parole est à notre collègue Khady Dieye. Demba Diop sa prépare.